kuy dund rek te nekk nit ku baax rek bëgg nga lu set set setal ni xuma la biir bi mbedd mi sax waaye nit ñi dañ koo war a commencé seen bopp ba pare am xel bu set am xol bu laabiir ndax xol bu laabiir mooy def yenn yi xol bu laabiir mooy tax nga mën set commencé ko ci biir kër nag génn si biti waaye suñu meer boobu di Bamba Fall monsieur le maire Médina macha allah ñun waa Médina mënuñu koo fay. yoo gisee taaru Médina jamono bu jamono bu njëkk ak léegi boo bokkul. léegi yaa ngi ñu ne Médina sans sable indi nañ pavé yi leer nañ lamp Médina yi defar nañ tali yi ñu ngi pénd tali di te waaye. ku xool Médina di nga xam ni maire liggéey na wala liggéeyu jàppale ay femmes jàppale jeunes yi jël na ñuy liggéey ñu ngi koy ñaanal nag. moom rek moo mën a mobiliser lii du di ko yàlla di ko ñaanal yàlla ak yonent bi ak Cheikh yàlla na ko yàlla jàppale mais maire pi yi ngi taxaw. ñun doomu Médina yi. actuellement xool ñu kii PS nekk xool ñu kii PDS la nekk kii xool ñu Médina ñu ñor. ba pare dafa ouvert ba pare buy la bu ñuy liggéey day ñëw jàpp si àndandoo ñun liggéey sol di yërëm yërë tëneem tëri travaayam liggéey comme ñun. ko ko boo ko gisee muy liggéey yow foo jaar da ngay gën a am courage. ñëpp génn ngir moom fu mu wootee rek ñu génn amuñu ci sago te duñ ci doyal. dugal Médina nga xool jeune Médina yi ñun ay jeune Médina lañu Médina lañu dëkk gëm Médina nekk nag ay noble biir Médina. di job biir Médina di wàcc si terrain bi di job yor suñuy peel te guddi soo ñu fekkee ñu toog da ngay naan du kii moo toog mais lépp kan moo ñu ko jëral Cheikh Amadou Bamba Fall moo jël ñëpp Médina moom si boppam def boppam maçon def ñu nu ay maçon def boppam ay balayeur def ñun ay balayeur moo tax nag liggéey bi day yokk rek na président Macky Sall président Macky Sall na jéem a roy Cheikh Amadou Bamba Fall pour Sénégal avancé. Médina 7 donc loolu yàgg nañu ko def avant même chef de l' état di lancer appel bi je que fii ba 3 avril opération bi. commence en décembre lay dem ba 3 avril veille fête de l'indépendance. Nous na ñëpp fête de l'indépendance. Médina ci boulevard général de Gaulle bi vraiment nous bëgg a maintenir cap bi ba le 3 avril chaque week-end am na ba le 3 avril am opération Médina C'est ci benn quartier. moderniser la Médina mu nekk une commune sans sable pavé trottoir yëpp def ci ay garab a ngi fleur yi ci commencé def ak yooyu mu nekk beneen Médina parce que yaakaar nañ foofu lañ toll. gis nga xar kanam Médina changé na grande artère yi Médina yëpp pavé nañ ko ba gis nga avenue Blaise Diagne pavé nañ ko boo ñëwee rue 6 pavé nañ ko nga dem rue 11 pavé nañ ko nga dem rue 25 pavé nañ ko nga dem rue 22 pavé nañ ko dégg lépp luy voirie classé des articles kii ñu ngi koy liggéey bu neexee yàlla